ci xibaar yu ñaari waxtu yi ci bëccëg gi euh, ci li nga xamante ni moom moo soxal Euh, journée mondiale bi nga xamante ne dañ ko jagleel képp kuy liggéey ci administration publique fii ci Sénégal ak ci euh, bitim réew euh, ñi nga xamante ne nag ñoo nekk ci kuréel googu ñoom ñu ngi ñaan état Sénégal ak ñi ngi koy jiite ñi nga xamante ne ñoo dem ba retraite ñu def ko ci fukk juróom benn at ak juróom loolu dañ ci ñëwaat bu xibaar yi di tàmbali beneen bi nga xamante ni moom moo gën a fës ci ponk yi moom mooy doxu ñaxtu bi nga xamante ne ñuy interpellé waa Palestine fii ci Sénégal ñoom amaloon nañ ko tey ci suba euh, bi 9h jotee ñoom nag nee na dañuy yóbbu état Israël ci justice euh, ngir euh, atte ko foofu ndaxte lu muy tekk ñi nga xamante ne ñuy waa Palestine ñu dogg di yoon ci bopp xibaar yi ba léegi ñu wax rek ci wàllu football euro 2024 bi nga xamante ne ci Allemagne lay am jamono ji ñu seetlu nag ne bu fekkee ne ay équipe yu mag génn nañ ci waa Pologne ñoom jot na guñoo toogagul mbokk yi li mu gënoon fës ci xibaar yi nes tur rek yu ñëwaat ngir faram fàcce ko di leen gërëm ci lu ngeen ñuy seetaan encore une fois Euh, li ma ko doon waxee rek 23 juin 2024 euh, moom mooy bés bi ñu jagleel képp kuy liggéey ci fonction publique fii ci Sénégal ak bitim réew euh, ñoom ñi nekk fonction publique Sénégal ñoom def nañu benn bataaxal di delloo njukkal képp ku nga xamante ni fonction publique Sénégal nga nekk di liggéey am na tamit loo xamante ni ñaan nañ ko njiit yu bees yi ñeenti ponk benn bi ñu ko sukkandiku ci ñi nga xamante ni ñooy liggéey te état Sénégal yore leen xaalis beneen beneen bi euh, moom mooy euh, képp kuy liggéey euh, na nga dem ba retraite am juróom benn fukki at ak juróom am na boo xamante ni tamit mu ngi soxal liggéeykat yi ñu ñoŋal seeni dundin ci lu nga xamante ni fonction publique nu ñu fa nekkee ñoom nee na ñuy sant di gërëm képp ku nga xamante ni moom moo nekk ci fonction publique Sénégal maa ngi ko doon wax euh, sànq ci lu nga xamante ne moo soxal waa Palestine euh, ndax tam dañu leen kuréel gu bees goo xamante ni dafay euh, dafay taxawal ñi nga xamante ni ñooy waa Palestine ak ay doomi Palestine ndaxte nee nañu Israël songu gi ñu leen di songu du dëgg du yoon nee nañu ñoom état Israël dañ koy yóbbu ci justice ñi fa teewoon ci ndaje moomu. ki nga xamante ni moom moo di Seydi Gassama Eliman Kane ñoom ñëpp ci la ñu bokk ñu déglu leen. xibaar yooyu dinañ ci ñëwaat euh, ci suñu yeneen édition ñu jàll ci aju 2024 ñi nga xamante ni jot nañu jugee aj nañ màkk ba pare ñëw nañu Sénégal euh, El Malick Ndiaye ministre bi nga xam moo yor wàllu dem beeg dikk bi moom teeltu na leen euh, nee na am na ci mbégte lool ba noppi li nga xamante ni moom la ñuy demoon màkk jot a dund beneen yoon dinañu xool nu ñu ñoŋalee li nga xamante ni moom moo di yooyu ko yenn yooyu condition ñu déglu ko yàlla dogal na ne tamit lu ci nekk rek jéem nañ cee dem kéem kàttan ak ñi nga xam ne ñoom lañu àndal bi équipe yi nekk fii ak ékip yi nga xam ne ñoo nekk fële ca makatal mu karam ngir mën a wàññi coono yi donte xam na ne aj màkka ma mënul ñàkk coono waaye nag am na loo xam ne ci suñu responsabilité la ñu koy assumer ba mu mat bépp euh, ja jafe-jafe bu ci am incha allahu rabbi bu aj ji ñëpp ñibbisee li ñuy njëkk a def mooy dem ci évaluation jublu daar daar ci waajal édition bii di ñëw nga xam ne à cent pour cent dinañu ko mën a maîtriser ba lépp mën a jaar ci yoon incha allah ci ñaanal suñu mbokk yi nga xam ne yàlla dafa dogal ah, ñu des ci aj gi bi ñu demee màkk ginnaaw bi leen xëy na jàngoro dabe La science économique l'enseigne. La politique fiscale peut être utilisée comme un bon levier pour améliorer les résultats économiques. Dans le cadre de croissance et de développement, les pays, surtout ceux à revenus intermédiaires, rivalisent pour attirer l'investissement d'une manière générale et l'investissement direct étranger en particulier. l'investisseur est davantage intéressé par des pays où il peut trouver une fiscalité avantageuse. De ce fait, les régimes incitatifs fiscaux sont devenus des instruments de concurrence ca ba mu nekk ca Paris ki xam moo njiitu réew mi Faye jot na daje ki nga xam ne mooy njiitu ba woon di Abdou Diouf daje boobee nekk lu am solo te diggante ñaari personnalité yi ak joxante loxo bu nga xam ne la muy témoigner rek mooy doxalin bu bees ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllum politique nee na lii kat Jomaay mën na cee gën a profité jege Abdou Diouf bi nga xam ne kat mën na ko conseiller. Abdou Diouf expérience am Abdou Diouf respect bi nga xam ne am na ko sur le plan international ak fi mu jot a jaar jàpp naa ne mën na jàppale ki nga xam moo di euh, ndaw bi nekk njiitu Sénégal. jàppale ko si expérience am jàppale ko si carnet d' adresse am ñi ngi jëm si exploitation pétrole ak gaz bi tamit am na lu bari lu mu ko mën a xelal ba pare mooy tun mooy tundikloo ko li nga xam moo di de pression yi nga xam ne moo di lobby te lobby mi ngi partout donc lu si mën di am rek jàpp nañu ni daal euh, ndaje boobu ndaje bu baax la te itamit boo nekkee ndaw di daw ko tàmbali baax na ngay seeti mag ñi nga xam ne ñoo la si jiitu buñ sukkandikoo ci Ali Fari Ndiaye moom analyse politique la nee na Abdou Diouf ci boppam ñëpp xam nañ ne homme d'état la nitu réseau la waaye tamit nit ku sage ba tax na loolee daal jomaay ya mën na cee gën a am jàngat. donte ne période am ak ayam ajustement structurel bi réew mi xawoon na métti économiquement mais diplomatiquement ak euh, au niveau international yore na Sénégal yorin bi nga xam ne moom la ko waroon a yoree. ba ñëpp céeral ko ñëpp respecté ko te loolu euh, Diomaye bu nekkee un jeune président war na mun a inspiré wu ci expérience boobu président Abdou Diouf am war na mun a inspiré wu ci élégance am ak ci sagesse am pour moom tamit mu mën a topp ci tànk yu mel noonu. ab Abdou Diouf bi nga xam ne mën na cee jaare yi tamit rek dimbali nga xam mooy Diomaye Faye Diomaye tamit nekk ci tànk yi Macky Sall mi nga xam ne moom itamit jot na daal di nekk ci peggub Abdou Diouf. je suis là aujourd'hui au Sénégal pour rencontrer des électeurs pour leur montrer. dama ñëw fii tey ci Sénégal ngir dal di gisanteeg électeurs yi ngir wan leen ne ñoom seen pouvoir de vote dafa am solo ndax nag ba jamono ji may àddoo euh, mosuñu ci gis seen bopp man ma bëgg leen xamal ne euh, maay candidate euh, bi leen di taxawal. eh ben moi je veux être moi je veux être la candidate qui les représente je veux être la candidate qui est là pour eux qui est là pour les rassurer et qui est là. bi nga xam ne dama fay nekk ngir ñoom. yëkkati seen baat fexe ñu voté ay loi jagleel ko doomu réewu France yi nga xam ne nekkuñu France man maay ki nga xam ne may ubbi sama gémmiñ ngir ki leen aar. ensuite je serai celle qui justement permettra à ces FDE de vivre bien dans ces pays qui accueillent nos Français euh, de l'étranger à la fois pour leur installation mais aussi à la fois pour leur retour. coow li li ko waral découpage administratif la boo xam ne mu ngi xewoon ci régime socialiste atum 1996 acte 2 de la décentralisation jël centre bi ak école élémentaire imam Abdou Ndiaye yóbbu ko ci commune Grand Dakar jël li ci des ci quartier ba yóbbu ko ci commune Biscuiterie ñaari fukki at ak juróom-ñett gannaaw loolu nag askan wa fay yeewoo ñu nga woy di xeex ngir ñu delloo leen seen établissement yi lee repéeru waa bopp moom leen jël yóbbu leen Grand Dakar ñun quartier bi ñu yóbbu ñu biscuiterie suñu dernier espoir bi ñu am ñoo ngi ko am si président Diomaye Faye moom moom moom la am espoir xam ne injustice bi dina ko réparer. tali secondaire bi moo nekk voie communale mi nga xam ni moom moo séparé commune bu biscuiterie ak commune bu Grand Dakar buñ sukkandikoo nag ci kii jiite kuréel bi di collectif Bopp Debout bi ñuy def découpage bi jëluñu en compte intérêt quartier ba. je suis la commune de Biscuiterie. fi may waxee ak yow nii maa ngi ci biir commune bu Biscuiterie centre bu bopp mu ngi bokk ci commune bu Grand Dakar looloo tax may sàkku ci njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ngir mu saafara jafe-jafe bu ni mel. injustice qui dure depuis 1996 soit réparée. ñu tabax ko ci atub 1955 centre bopp li ko taxoon jóg mu di tàggat ndaw ñi ci wàllum tàggat yaram waaye itam ci wàllub aada tàggat leen itam ci wàllum koom tey nekk askan ya fay yeewoo di jàpp ne rek centre bile seen héritage culturel la. centre de bopp histoire la ci bopp kilifa yu bëri yoo xam ne bopp la ñu dëkkoon jaar nañ fii centre de bopp daf fi euh, pétanque daf fi nu mu tudd encore daf fi daf fi tennis de table basket fi lii ma téye ni tey mooy première coupe d'Afrique des clubs champions xam ne jigéen ñi ñoo ko remporté en ngir ñu delloo leen centre bopp ak école imaam Abdou Ndiaye askan bi nee na daal duñu tàyyi ñoom sax dañoo improviser ab doxuk ñaxtu ngir ñaax kilifa yi ñu delloo leen seen établissement yi lee lii projet la boo xam ne nii dañoo toog classe nas ko sàkkuteef bi du lenn lu dul fexe rek ba aar suñu plage yi. jëmmal fi loo am solo ëllëg loole moo di seen mission ñu nekk ay fukki fukki étudiants ñu daal di boole seen doole ngir rek lépp luy mbalit lu nekk ci plage ñu daal di ko fay jëli bile yoon nag ñu amal ko ca bu yoof nga ko waraloon mooy tey ñëw euh, ci wàllum environnement sensibiliser nit ñi. wax leen impact environnemental bi nga xam ne moo nekk di euh, surmené un peu ci euh, environnement bi surtout sur le côté euh, les côtes maritimes. dugal seen loxo ci boobu la xeex nag tax ñeneen di daal di jot ci liggéey yi leen ndaw ñaari étudiants yi ñoom it guleet ñu daal di bokk ci activité bi ni mel ñu bëgg ko woyal quand on veut se protéger suñu bëggee aar suñu bakkan aar it suñu dëkkuwaay faaw ñu soppi doxalin faaw ñuy xeex ngir sàmm alam gi. bokk ci genre activité yu mel nii jàppalante entre ñun ñi bañ di tilimal tamit. naam seen doole demeewul noonu nag teew. nii dañoo toog classe nas ko sàkkuteef bi du lenn lu dul fexe rek ba aar suñu plage yi. jëmmal fi lu am solo ëllëg loole moo di seen mission ñu nekk ay fukki fukki étudiants ñu daal di boole seen doole ngir rek lépp luy mbalit lu nekk ci yu ñu daal di ko fay jël yi bile yoon nag ñu amal ko ca bu yoof ndaje bi li ko waraloon mooy tey ñëw euh, ci wàllum environnement sensibiliser nit ñi wax leen impact environnemental bi nga xam ne moo nekk di euh, surmené un peu ci euh, environnement bi surtout sur le côté les côtes maritimes dugal seen loxo ci boobu la xeex nag tax ñeneen di daal di jot ci liggéey yi leen ndaw ñaari étudiants yi ñoom it guleet ñu daal di bokk ci activité bi ni mel ñu bëgg ko woyal quand on veut se protéger nous suñu bëggee aar suñu bakkan aar it suñu dëkkuwaay faaw ñu soppi doxalin faaw ñuy xeex ngir sàmm alam gi. bokk ci genre activité yu mel nii jàppalante entre ñun ñi bañ di tilimal tamit. naam seen doole demeewul noonu nag teewul ñuy woy di amal seen liggéey ca na mu waree. li ñu mën a def bëri na lool waaye nag amuñu ay moyens ngir jëmmaale seeni projet ñu ngi rek a sàkku si ñi nga xam ne dañuy yëngu si lépp luy sàmm alam gi ñu jàppale ñu dugal seen loxo si lu ni to pollution plage yi ak érosion côtière fii ci Sénégal mu nekk ñaari question yi nga xamante ni nag daal dinañ koy becc ci ab film documentaire balaa ñu ko fësal nag ñuy woo ñëpp ba ñu dugal seen yoxo ci xeex aar géej gi. On est ñun daal ñu ngi nii ñoo ngi woo képp koo xam ne mën nañu jàppale ñu dimbali ñu ndax fi ñu bëgg dem ñëpp si nar a gis seen bopp te amul xàjj ak seen ñu wax ci euh, sàmm gi ak ñoo xam ne ñuy sàmm euh, ñoom euh, may nañ leen ci Saint-Louis ñeent fukki hectares yoo xamante ni dinañ ci dinañ ko mën a jëfandikoo ngir seeni activité ak seeni bay tamit li nga xamante ni loolu lañu leen jox mu ngi toll ci 20 millions ci suñu xaalis. ñoo ne dina tax ba nga xamante ni ñoom sàmmkat yi nekk foofu dinañ mën a lokkaliku bu baax a baax ñu déglu nga xamante moo ne moo ne Samb moom mooy seen directeur. waaw ñu ngi leen defar euh, ñeent fukki hectares lañ leen bayal bu demee ba jamono biy jot ñeent fukki hectares lañ leen di bayal pour ñu jox ko seen jur yi loolu li muy signifié mooy parce que dégg gis nañu diggante baykat yi ak sàmm kat yi conflit da ciy am chaque fois toujours ñuy xuloo di xeex te ñàkk bi la loolu nag moo waraloon ñu leen leen bayal lii jox leen ko parce que nit ki tamit boo jëlee suufam nga ciy liggéey di ci am kon ñoom tamit léegi amatuñ fu ñuy sàmmee kon ñun war nañ def benn effort boo xamante ni toppatoo leen loo xamante ni mën nañ cee teg seen i tey boo xoolee commune bi fii euh, euh, commune Kër Momar Sarr commune commune de Ñiij rek ngay gis ku pël buy rat parce que ñax bu tooy bi boo ko amee di nga am meew. mooy pël yi doon dem di màngaani parce que fii di doon gis nit ñi di dem di màngaani di bàyyi seen kër di bàyyi seen i doom di dem ñu xam lan moo xew seen ginnaaw léegi nag ñu ne lii bu ñu ko defee nañ leen mën a téye ci seen biir commune bi ñu téye nekk ci seen kër yi uuf seen njaboot di am lu ñu jox seen bàyyi ma que lii lañ doon wëri ko buñ koy wëri nag buñ ko amee fii kon que dem ba sunu partenaire West Africa Farm at bu ne def koy def quarante hectares la. benn ONG bu tudd Delta moom mooy jàppale ñoo xam ne élèves yi ak étudiants yi ci ñoom nan la ñu mën a def euh, bay diisoo euh, di sottante xalaat euh, ngir mën a liggéey ñoom ñëpp loolu nag ci benn projet lalu boo xamante ni ñoom nañ ci mën a lëkkaloo. Euh, ngir liggéey liggéey bu mucc ayib yu ñu ndaje lañ daal amal ngir rek xool ana naka la ñuy def ngir mën a gunge xale yi ci lépp lu jëm ci mbirum entrepreneuriat ak ni ñuy doxalee lépp luy jëm ci wàllum entreprise loole nag ñu amaloon ko ak étudiants yi ndaxte jàpp nañ ni dina bokk ci luy mën a tax ñu xool ana naka la ñuy def ngir rek ñu mën a gën a jëmal seen compétence ci wàllum communication. bés bi tey lu ko waral mooy dañuy def Delta Innovation Camp. pour tey suñu ndaw yi ñi mun leen ñaax si bu ëllëgee nan la ñuy jëlee seen euh, seen vie en main parce que tey kenn xaaratul kenn euh, tey euh, dañ leen jox tey ci bës bii nii tey ci benn journée bi ñu passé ak ñoom dañ leen xaw a jox ay outils yi nga xam ne bu ëllëgee ñoom dinañ ko mun a utiliser si seen jàng dinañ ko mun utiliser si seen avenir ci jamono ji nga xamante ni nii ñu ngi waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum réchauffement climatique Delta Airlines moom di xamle nii waajal nañ loolee bu baax a baax. ku ne transport aérien ne euh, pollution waaye tamit transport aérien rawatina Delta Airlines ñu ngi ciy dugal suñu loxo commencé di ci taataan di wàññi plastique bi ñuy utiliser di utiliser ay euh, matériel recyclé suñu biir avion yi. yile activité nag ñu àndi seeg ONG Junior Achievement ay at a ngi nii mu yëngu si lépp luy jàppale xale yi ci wàllum entrepreneuriat. dañuy former xale yi ci lépp lu jëm ci entrepreneuriat euh, woon leen naka lañ mën a liggéeyee ñoom ci ay projet yoo xamante ne nii dina leen permettre ñu mën a am impact bi ñu soxla. dinañ amal njëriñ bu baax parce que dans dans tous les domaines comme finance dans le domaine aviation dans tous les domaines daal parce que tey. taxawaayu tey bi yamul woon kese ci ci aviation mais ça parlait de tout quoi. bile activité doon lu ama am solo suñu sukkandikoo ci organisateurs yi lee jàpp nañ ne li ni mel lañ ko war a gën a mën a wëyal ngir ndaw ñi mën see mën a jëriñoo. ñaax bépp ndaw boo xamante ni bokk ci projet boobu nga mën a jëmbal say euh, mbir. ñu wax ci mbirum accident bu nga xamante dem bu ci Thiès la amoon benn accident boo xamante ni benn dawalkatu Jakarta euh, daanaka moom moo mujj ñàkk bakkanam ginnaaw bu ñu ko yóbbee ci Amadou hôpital euh, régional Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès euh, ginnaaw bu mu foqatee li nga xamante ni moo di pochetu ku jigéen ku nekkoon ci benn taxi apporte nag naka noonu ci la ko mbëkkee mu daanu ba laata ñu ko yóbbu hôpital ci la ñàkk bakkanam danañ ko wax euh, ci euh, bopp xibaar yi football euro 2024 ci euh, fi nga xamante ne moo di Allemagne jamono ji ñu ngi koy amal ñu wax rek nii dem ba Portugal moom moo dóor ñetti bal ci dara dëkk bi di Turquie Cristiano Ronaldo def passe passe boo xamante ni sax ay passe yoo xamante ni daanaka juróom-ñetti passe la ci euro 2000 ci euro bi. Eh, ginnaaw bu mu commencé carrière ba léegi loolu nekk record eh, ci eh, noonu ñu jàpp ne Allemagne nag ak Espagne ñoom qualifié nañ ci huitième de finale yi boobu ba léegi wax ni nag Pologne ñoom daanaka toog nañu tey ji Allemagne sax war na football ak ñi nga xamante ni ñoo di Suisse bu 19h jotee. mbokk yi amoon naa mbégte lool di leen jox xibaar yi maa ngi leen di sant di leen gërëm ci li nga ñu doon teewlu yendoo leen ak jàmm.